li fi nekkoon ci daara bari na te ñoom la fi seen njaboot nekk ñi fi nekk ñëpp ay doomu daara lañ kon ci même njaboot gi lañ ci même famille bi lañ euh, dama wax léegi maa ngi koy wax ma ne léegi la njàngum arab xew ba ñi koy ñi am ñu koy jàng te jógewuñ ci daara ji waaye bu njëkk ku jàng rek ci daara ji nga bokk kon ñii ay doomu daara lañ yoo bokkal ndono mi ngeen bokk ndono mi ndono mi nag mën nañ ci ëppalante ay sas parce que kenn ku nekk jumtukaay ba la yàlla jox lalay sas sa day noonu loolu mën naa nekk waaye du tee kenn ku nekk sa gopp lislaam xeebu xeebu ko ci tool bi moo tax ñun ñëpp nii ci tool bi lañuy ñuy xëy liñ ci xëyee nag mooy jàng ak jàngale foofu lañ ci toll di jàng di jàngale ñun ñëpp moom lañu def ñi fi ñëw ñëpp ci ay association islamique lañ nag parce que Sénégal kuréel yi fiy yëngutu ci diine bu dul daayira rek association la te loolu la jamono indi jamono moo tëdde noonu waaye ñoo war a bokk ay objectif te waruñoo réeroo waruñoo réeroo léegi réeroo gu fi mas a am rek pexey pexey noonu la ndax lislaam kenn mënu ko féeti fépp ku ko bëgg a féeti fépp doo ko mujj féete fenn kon ñun ñoo bokk li ñuy def yàlla sa landal leen fii landal ñu fii ngeen ëpp ñu ay land ëpp ñu ay dëpp néeg waaye nag ñun suñu dëpp néeg bi tam bu dajaloo baax <laughs> loolu moo tax bi ñu demee ba jaaxle jaxlé gu dara moy di diggé ci diine jo xamné amul kilifa loolu tekkiwul ne kilifteef amul ci réew mi kay ay kilifteef amna ci réew mi mais pexé ay nit taxna kilifa gu ne dafa am groupe bu mu wax ne mom mom rek la nek sen kilifa te ñun day limay wax ni man duma ko wax parce que yàlla suturaal na ma mënumaa wax luma gëmut xaadimu rasul man limay gëm bo gisé suis à l'aise ma ñëw Touba suis à l'aise ma jaxoso ñep parce que man nima comprendre Sëñ Touba du du nitu tariqa nitu mu jaddit la ñëpp xaj nañ ci këram man loolu laa gëm man li ma gëm mooy suñ tubaa ñëpp xaj këram képp ku julli xaj nga ci këram gi man je si à l'aise fii te ñun ñëpp nous sommes à l'aise ci loolu hmm, macha allah loolu moo tax nag bu bu yàlla dogalee ñu rafle kilifteef te problème jullit yëpp teef la rawatina fii ci Sénégal lu ñu dal rek wala ñu jéem ko te mënuñ ko wala ab noonu yàpp ñu rek ñàkk kilifa moo ñu ko teg te fekk réglé wuñ problème bi suñ dara du réglé loolu ñun moom lañu gëm di ko wër nag fu nekk ñu ko wër di ko jéem fu nekk waaw ndax mu lu munta ñàkkal ndax loo xam ne soo ko amul doo def li la war loola am ko farata doon ci yoon donc ñu jàpp ne kon li sëñ bi wax ñun la ko waxal ñun ki ñu doon seet gis nañ ko ki ñu doon seet mooy leadership leadership bu lislaam te moom mat na ko mën na ko mat na ko ci ndonoom man na ko ci réalité waaw loolu la yàlla dogal loolu ku ko nanguwul parce que tu n'as rien compris donc ñu jàpp ne dañoo war a ñëw ci kanamam xamal ko ne ñun de yow lañ doon wër ñi ngi nii nag liñ man bariwut waaye loolu ñu wax ñu def ko loolu mooy message loolu ñu tax a jóg ñun ñu fi daje nii ñëpp kenn ku ne responsable ci la mu nekk. li ñuy daje ñun ñuy ñëw sax li ñuy daje bëriwut waye toog bi danaka kuñ ci wo do laaj lu tax ngeen wax parce que buñ ñu nañ dem Tuubaa rek ñepp japp ne lo tax ñu jóg loolu fi ni ñepp Senevision.com la crédibilité notre credo Senevision.com wóor la ñuy tëggoo Senevision.com kumpa tàggoo ak yéen